lan la ci juge bi nga jóge démb tey nga dem si live bi nan ndaw say wax def benn benn détachement de cette histoire tout en tout en n'étant à l'aise ci li ngay def moo tax man la est-ce que amul problème mu euh, euh, euh, dédoublement de personnalité. il est l'heure que quand même xool. yóbbu ko ci ay experts. bëggoon naa ñu taxaw ci mbir boobu mais temps bi daf ma. léegi li a xam mooy bëggoon naa am sa gis bi ñu évacué dem à l'hôpital. ku doon jàppale Adji Sarr bu fekkee dëgg la tax a jóg dana ma ça m'étonnerait quand même ku doon jàppale Adji Sarr parce que bu doon dëgg la tax a jóg troisième jour garde à vue nga naan cette histoire. parce loolu moom ni doon boo jot da nga ñëwaat. ñu waxaat ci l'affaire Pape Alé dañ ko bëgg a rey ñu bëgg mu dee da leen doon déranger fi ñu bëgg jëm bëgguñu Pape Alé mu nekk si liberté parce que Pape Alé Niang deful dara lu war a tax ñu yóbbu ko ci kaso bi c'est un journaliste il cherche des informations il cherche des scoops waaw à fait ko bëggee jiiñ na ko ay dossiers euh, euh, stampillés confidentiels dañ cee génnaat toppee ko leneen fausse nouvelle ak fausse info diffusion de fausse nouvelle ak ñu jox ko liberté provisoire am na droit wax lu ko neex mais duggul ci dossier bi ñu koy topp moom ñu ngi koy éviter mais ci yeneen ak yeneen am na droit wax ci bu jotee information en tant que journaliste comme quoi que commissaire bi yóbbu nañ njabootam yi demee noonu c'est une information en tant que journaliste tu as droit de passer l'information tout en protégeant tes sources nañ ko bàyyi mu les journalistes yi solidaires de leurs frères. il a tout donné ñu koy def mais dama leen ñaax. il a tout donné à ce peuple. il pouvait vendre comme ni ko yenn journalistes yi defee. il pouvait vendre son aura. Mm. mais il est resté digne te exemple de journalisme de journal dans le journalisme la. donc maa ngi wax que ni maa ngi ñaawlu téye bi ñu ko téye arbitraire. kii nga xam ne feebar na jamono bi ñu ngi traumatiser ay doomam traumatiser jabaram ci jamono jamono ji nga xam se ni ñu ñu ngi bàyyi sàcc yi seen kër yi trafiquant de faux billets yi seen kër yi ñu tooñ Sénégal dëgg instant bi ñu ngi seen kër donc nous sommes solidaires de ce gars qui a tout donné à son peuple et nous exigeons que état bi mu bàyyi doomu ba muy fitnaal ñun loolu moo ci suñu xalaat te lépp lu ko dal ils subiront les conséquences parce que ñoom ñoo ko téye ci kaso bi arbitraire ba mais si Sénégal yëpp def ko yitte parce que kii du ñun dañ ko war a fayee mënuñu ko sax fay mais dañ ko war a fayee suñu solidarité ba mu xam que ni peuple bi taxoon may jël yenn risques yi il, ce peuple-là en vaut la peine. Ah. Les Sénégalais le font merveilleusement bien, mais cela ne suffit pas. On doit taper davantage sur la table. kilifa diine yi ñu leen di yëgal que am na benn journaliste bu tudd Pape Alé Niang bu ñuy xoqatal guddi ñu toll nii couvrir nañ Madiambal Diagne wax na lu gaaw ci gendarme yi ba jaxate mu ngi doon félicité wu de la mort de gendarmes. tous ces gens-là sont couverts protégés ñu singali Pape Alé Sénégal nag du woon lii nañ di dëgg kilifa diine it am nañ ci kàddu intellectuel yi am nañ ci kàddu Sénégal yi am nañ Sénégal mosu woon doon lii jaay doole bi ëpp na dictature bi ëpp na tëjaate bi ëpp na nappaate bi ëpp na Sénégal du lii la lii la lebaloon Macky mm. jox nañ ko ñaari mandat teral nañ ko jox nañ ko post bi gën ci post yi def nañ ko ni yaay suñu chef d'état def nañ ko tous les honneurs il ne doit pas nous payer ça. Mm. nag que nit yi wax dëgg. sinon bis bu dee débordé même ña ci noppi woon ils vont ils vont subir les euh, subir les conséquences. Pape Alé di suñu confrère donc depuis lors euh, ñun ñëpp ñu ngi manifester suñu soutien àndandoo doon benn xàccandoo dóorandoo ndax nag. Euh, métier am taskatu xabaar dafa nekk métier bu noble c'est pas pour rien que ñu nekk quatrième pouvoir ci ci ci dëkk bu nekk donc loolu nag dañuy ñaan rek euh, ñu bàyyi ko ci nu mu gën a parce que nag euh, soxla nañ koo ci ci gis-gisam ci xalaatam bu sell bi nga xamante yàgg di ko partagé ak nga xamante ni ñoom ñooy say fidèles téléspectateurs mais rawatina ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo di euh, peut la petite crainte bi nga xamante ni mu ngi ñëw te moom mu bokk ci suñu ay royukaay di nit ku baax nag boo ko approché da nga xam ni nit ku baax nit ku oyof la donc ñu ngi koy ñaanal jàmm fu mu nekk yaram gi dégg naa dafa xaw sutante donc ginnaaw ba grève de la faim nga Pape Alé Niang il est très màttee day dagg donc boobu ba tey mi ngi euh, woy la ab crève de la faim euh, ñi ngi ñaan rek jàmm tukkee euh, ci yooyu les mbir donc ma bëgg nag ñu tëj benn ci benn affaire bi nga xam man personnellement dama ko yëg dem mais mais daf ma intéressé arrestation de Koukandé pour escroquerie et charlatanisme waaw xam nga fi jaaroon naa fi ñu laaj charlatanisme voilà ma ne leen mais man come on man jombale naa sama bopp ñooñu noonu sama temps du ma ko offrir à ces gens muy Sénégal bu dee. football dafa nekk benn fee bu graaw taay charlatan yi ci internet bi voilà. sa bopp ñooñu tu sais que ni c'est des mythos quatre-vingt-dix-neuf pour cent ils jouent avec la psychologie avec la vulnérabilité des gens. les gens bu ñu xawee ñàkk wala seen sëy nekk ci diggante wala ñu kii ils sont vulnérables ils sont exploitables les gens font de la com ils savent psychologiquement comment manipuler les gens nous on le sait. comment fait promo. mais dafa nekk trop éditaay nag cest à mooy li nga wax nii. ñenn ñi dañoo def mais dañoo dem finalement ba ba ba mbir bi dafa commencé di grave nag parce que ñi ngi ci euh, détournement xaalis bu bëri arnaque ay. nee li ci gën a ndaw xam nga lu tax xaalis la ci gën a ndaw psychologiquement ils détruisent des gens dañ lay déstabiliser xululoo ak sa wujj xululoo ak sa jëkkër jaxase askan bi. les gens ne réfléchissent les gens sont obsédés par ça. porteur de ay porteur de voix ngeen moo tax nag ngeen war de football yi on a des joueurs on a dépassé des milliards comme toutes les autres nations et nous sunu yi nous parle de ces gens là pourquoi on parle de pourquoi on leur donne cette importance c'est des mais les vrais ñi yàlla may xam-xam rus nañ sax di defal seen bopp publicité comme ça ci télé bopp. Je parle même pas de ce quand tu me poses question, c'est comme si tu me pourquoi je parlerai d'eux mais ils sont insignifiants, c'est des voleurs, c'est des trompeurs. Il y a une très grande souffrance derrière cette histoire de Serigne. Il des gens en souffrent. Il y a des familles qui am na wujj yu muy indi seen am na xarit yoo xam ne sa xarit àndal kii dalaa def lii am na jinne ju la jàpp les gens sont déstabilisés par ça l' état sax dafa war a dafa war a indi ay lois yoo xam ne day gën a xam les a de l'extérieur également ñu ci bëgg dee mais ñu leen di rey ñu leen di rey wax gars yi nañ dellu si yàlla yàlla moo ñu bind suñu borom moo yor suñu wërsëg moo yor suñu feebar moo yor suñu ay lii xew ci suñu life nañ ko delloo suñu bopp nit ku toog fii naan la noo démb aras laa fanaan sama kurus gi sama jinne yi mais yow yàlla moo gën nit moo gën a foor jinne ci yàlla suñu wasila yu baax yi ñu ngi fi sa waajur ñu ngi fi tàll ko sa loxo ñu ñaanal li ci des nga bàyyi lépp ci loxo yàlla lépp loo war a def nga def ko ni nga ko war a defee bul mës a liggéey sa morom bul dem ci sëriñ dafa tudd nit waxal sa yaay booy mu ñaanal la sa yaay bu la ñaanal lu yàlla di delloo léegi nag lay li ci des mooy nga góorgóorlu soo bëggee tekki da ngay jël le temps am endurance da ngay liggéey lundi tekki mardi y aura des moments de doute y aura des moments de perte. tu essayes de rester avec Dieu y a que la foi moo la mën a dimbali dans la vie. tout à fait su nga boo amee ngëm da ngay am balance da ngay mën say say émotions parce que lu mënta ñëw. finalité bi mooy da nga koy delloo yàlla tu lui fais confiance ñi nga xam que ne dina la accompagner. dina teg nit nattu toute personne passera par des moments difficiles et tu te dis que ne je dois juste gérer ça xam nga il faut yéen porteur de voix c'est-à-dire yenn fay yi bu ngeen koy banaliser rek day dem ba ba ba ba mun a ba mun a yegg si. mais xam nga bu fekkee mbër yi voilà mbër yi ñooy def la ngeen ci wax di mun a. conscientiser nit yi on parle de on parle de gis ku leen gën a jox euh, promotion la lutte après problème mooy moo la faa yow nga faa nit dof nga xam ne nit dof nii naw naa ko nit dof lépp lu mu wax dugal ci sëriñ si lépp lu mu wane dugal ci sëriñ si ban jeexital lay am ci yow da ngay wax que ni donc dans la vie du yàlla rek mooy gérer affaire yi léegi xam nañ la boo jugul sa bopp ñu rey la loolu lañ lay wax déstabiliser la yow mi gëmoon yàlla te dëgëroo sax da ngay dem ba ni ah bàyyil ma dem rek wuti benn bouteille wala benn kii kërëb kërëb wala ñun la. milieu bi milieu bi nga nekk ku jugal sa bopp ñu rey la ki rek xam nga fi mu neexee donc yow mi nga xamante si yaa nekk au devant la scène war a wane bon exemple yow yaay def la promotion de ces sëriñ donc le plus grave c'est ça ce sont des stars ñooy taxaw boo laajee mbalax man dañ naan la bouteille yi milieu bi ku jugul xam ku takk takkuwul xam booy takkuwul di dee.

mais ma lay remercier ci disponibilité bi. di un plaisir toujours de <laughs> def ak yow. Ah. nga jéem a sama garde jaxase ba mais du yem mukk. mais da ngaa jël say garde tey moom nangu ma def foo xam nga man dafa affaire si daal yooyu di jaxase. <laughs> non mais tu sais que c'est voilà c'est juste pour l'émission. voilà je t'aime bien. Mm. maa ngi jaajëfal Sénégal yëpp encore une fois par rapport ak le soutien qu'ils m'ont témoigné par rapport ak seen sympathie ak seen respect reconnaissance. Mm. et pour dire que ni motivation lay doon ci man pour que ma continuer dans dans cette voie de vouloir servir